ginnaaw bu mu ci soññee ne xam na ne am na ci ñoo xam ne diis na ci ñoom ndax ñëpp mënaluñ seen bopp ndax am na ci ñoo xam ne euh, bu ñu amee luñ lekk tey mën nañoo bañ a am luñ reer kooko masque yombut ci moom boo ko ko diggalee dana jafe kon sëriñ bi nee na mu ngi diggal mboolem taalibe sëriñ Tuubaa yépp kenn ku ci ne lu ci waay man ci jënd ay masque def ko àddee sëriñ Tuubaa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 waaye kon sëriñ bi nee na mi ngi koy digal taalib bi yëpp ñu góorgóorlu ci dajale ko jébbal ko ko am na commission bu koy dajale ko mën a yóbbu ci kër sëriñ bi nga yóbbu ko fa bu dul itam euh, jox naa ndigal sëriñ Ousmane ñu def taxawal benn euh, commission bu yaatu boo xam ne dañ ko yaatal ci dëkk bi buñ ko dajalee yóbbu ko ba ci sëriñ bi nu mu ko santaanee ñu war ko tasaare ci nit ñu def ko kon loolu itam ñu ngi ciy soññ bokk taalib bi yëpp